sëriñ saalihu mbàkke sëriñ saalihu mbàkke mi ngi feeñ jamono ci bisub 3 mars 1934 ci dëkk bi nag di daaru xafoor muy doomu soxna assu si ak cheikh mouhamadul faadal mbàkke moom sëriñ saalihu mbàkke bi mu feeñee jamono nag ci bisub 3 mars 1934 nag ci dëkk boobu nag di daarul xafoora waajuram nag cheikh mouhamadul faadal mbàkke moo sàkku itim nag ñu tudde ko nag rakku cheikh ibrahima fall lamp baabul diina ba di sëriñ saalihu faal mu bokk nag ci turandooy nag sëriñ saalihu faal yi di doomu cheikh mouhamadul faadal mbàkke ak soxna soxna asu si moom sëriñ saaliwu mbàkke amul kenn nag kum bokkal cheikh mamadul faadal mbàkke nag ak soxna asu si am na ñeneen nag ñum bokkal soxna asu si te bokkuñu nag cheikh mamadul faadal mbàkke ñu mën cee ràññee nag rakkam ja soxna mariama njaay bintu soxna asu si bintu sëriñ jibi njaay sëriñ aadama juufa ibnu soxna asu si ibnu sëriñ sàmba juufa sëriñ badara juufa ibnu soxna asu si ibnu sëriñ sàmba juufa soxna awa juufa bintu soxna asu si bintu sëriñ la bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu nag waajur wu góor laataa sax ñuy xuus nag ci mbirum ñii mu bokkal nag waajur wu jigéen nag te bokkuñu nag waajur wu góor ñu wax leen nag waajur yi ko meññ nag ñoom ñooy ñan waajuroom wu góor wi nag di Cheikh Mamadou Fadal Mbacke doomu Cheikhul Xadim la waajuroom wu jigéen wii nag di soxna Assu Si mi ngi cosaanoo nag Jolof ci dëkk bu ñuy wax nag war xooxo muy doomu sëriñ Ndaraw Si ak soxna Penda Jeng soxna Penda Jeng mii nag doomu soxna Coro Faal soxna Assu Si nag bi mu cosaanoo nag Jolof waajuroom wii nag di sëriñ Ibra Si nag moo ko yar nag assu ibra muy mbokkum nag maam cheikh El Hadji Malick si sëriñ Abdul Aziz si Malick da baaxa bi soxna si nag nekkee nag ndakaaru daana def nag tabaski gu jot sëriñ Abdul Aziz si nag da baax yit ko nag am xarum tabaskeem ci quartier boobu nag di Gueule Tapée nag ci Médina mu nekkoon itam nag mbokkum soxna ummi mbay moom maam cheikh mbay bu Louga soxna ummi mbay moom nag biñ ko jébbalee cheikh Mamadul Faadal Mbàkke bi muy ñëw Touba nag la ko indaalee bi mu ñëwee Touba itam nekk feek soxna si nag ab diir wala nekk feek soxna si nag ay at cheikh Mamadul Faadal Mbàkke itam nag dëkkoo woon na ko bi Cheikh Mamadou faadal Mbacke nag dëkkoo moom soxna Aida Sy mii nag ñu gën a xam nag ci Astou Ibra benn bant nag la ci Cheikh Mamadou Fadal Mbacke am muy Serigne Saliou Mbacke mi mu fayee nag Serigne Saliou Fall nag bu daaru xafoora soxna si nag bi mu fi nekkee kër soxna Oumy Mbaye nag la nekkoon muy fii soxnay Cheikh Mamadou Fadal Mbacke yi nag dëkkoon ci ginnaaw kër Serigne Fallou Mbacke gi foofu itam nag fi la amoon néeg itam nag nekk fi mu bokk itam nag ci néeg boo xam ne nii moom soxna Aida Sy mii Cheikh Mamadou faadal nag jël na fa nag ay soxna ay yooni yooni yoon ñu mën cee ràññee nag waajuru sëriñ Cheikh ummi nag mu mag man cee ràññee nag waajuru sëriñ cheikh nag mu ndaw man cee ràññee nag waajuru soxna ami cheikh nag bu cheikh mamadul faadal man cee ràññee nag waajuru soxna maam buso mbàkke moom sëriñ fàllu nag mi ngi jébbal sëriñ mbàkke daba saar ak moom nag soxna ayda si mii néeg la boo xam ne nii nag néeg la nag bu sëriñ nag taamu woon soxna ayda si nag bi mu nekkee ak cheikh mamadul faadal mbàkke la fa am nag benn bant muy sëriñ saaliwu mbàkke mii nag ñu fayee nag sëriñ saaliwu faal nag bu daaru xafoora soxna ayda si nag ginnaaw cheikh mamadul faadal mbàkke lañ ko jébbal nag ku ñu wax sëriñ jibi njaay mook sëriñ jibi njaay Njaay nag am nañ nag benn bant muy soxna Mariama Njaay ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Jibi Njaay lañ ko jox nag sëriñ Sàmba Juuf mook sëriñ Sàmba Juuf nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ Adama Juuf sëriñ Babacar Juuf soxna Awa Juuf soxna Daba Juuf mu nekki nag mbokkum sëriñ Cheikh Coro Mbàkke moom sëriñ Cheikh Absa Mbàkke soxna si nag Ndakaaru nag la génnee àdduna ci atum 1983 ci mois de novembre sëriñ Saaliwu Mbàkke nag mii doomam moo ko jëlee Ndakaaru nag indi ko Tuubaa mi ngi ci armeer yu mag yi nag ñu jébbal boroomam soxna soosu nag moom meññ soññ nag sëriñ saaliwu mbàkke mi moom cheikh mamadul faadal mbàkke sëriñ saaliwu mbàkke nag feeñ jamono ci ñetti fan nag ci mois de mars ci atum 1934 ci dëkk bii nag di daarul xafóora ñu wax leen sax lan moo tax nag sëriñ saaliwu mbàkke nag feeñe jamono nag ci dëkk boobu nag di daarul xafóora waajuróom wii nag di soxna asu si da dem nag ab tukki bi mu tolloo nag daaru xafóor la yëg ne yëfi jigéen nag daaneel na ko mu jàdd nag ci mbokkam nag mu fa nekkoon nekkoon nag soxna maam saaliwu faal di soxna nguy faama njaay bi mu jàddee nag kër sëriñ nguy faama njaay mii na la ko suñ borom nag may sëriñ saaliwu mbàkke mii ginnaaw buñ ko yëgalee nag cheikh moomu dul faadal mbàkke la wax ne daal soxna assu moomu gone googu mu am nag daarul xafoor nag la ko amee kon nag sëriñ saaliwu faal nag laa koy duppee mu tudde ko nag sëriñ saaliwu faal nag am na ñeneen nag ñu wax ne li tax nag sëriñ saaliwu mbàkke mii feeña jamono nag ci dëkk boobu nag di daarul xafoor soxna nguy faama soxna la soo xam ne nii maam saaliwu faal mii rakku cheikh ibrahima faal lamp baabul muridina nag moo ko dëkkoo woon nag ci daarul xafoor soxna nguy mi nag mbokkam la woon dafaa nekkoon nag ci moom bi mu fa nekkee nag la doomam jii nag feeñe jamono nag ci dëkk boobu nag ci daarul xafóora bi ko cheikh mamadul faadal mbàkke nag yëgee la wax ne nag nañ ko tudde nag rakku maam cheikh ibrahima fall lamp baabul muridiina ba di sëriñ saaliwu fall booba nag soxna asusi meñ ci loxoy soxna nguy faama ci ak ngan nag goo xam ne nii nag da ko faa amoon li wér te wér mooy doomu cheikh mamadul faadal mbàkke bii mu fayee nag sëriñ saaliwu fall dëkk boobu nag di daarul xafóor itam nag la feeñe jamono ci kër googu itam nag di kër maam saaliwu fall Fall tim nag la feeña jamono ci loxoy soxna nguy faama mi sëriñ Saaliwu Fall nag dëkkoo woon itim la feeña jamono nag ci dëkk boobu itim nag di daalul xafóora bi mu matee dal alxuraanul karim waajuram nag mi cheikh mamadul faadal mbàkke yóbbu ko nag ci dëkk bii mu njëkk a sanc nag di ndindi jox ko fa nag taawu sëriñ aafee ñang ba di sëriñ moodu ñang ci loxoy sëriñ moodu ñang nag la jànge alxuraanul karima moom sëriñ saalihu mbàkke ginnaaw sëriñ moodu ñang nag jaar na nag ci sëriñ demba korka sëy foofu itim nag ci ndindi ci ñaari jëmm yi nag xam-xam moom doomu cheikh mamadul faadal mbàkke bi ginnaaw bu mu mokkalee alxuraanul karim nag ba bindub kaamilam ni ko cheikh mamadul faadal mbàkke nag defalee nag ay doomam ni la ko ko defalee moom moomu nag yóbbu ko nag màkkatal mukarrama ci atum 1959 ginnaaw bu mu ñibbisee nag itam nag la ko sëriñ fàllu nag dël nag ci dëkk bi nag di Touba Bogo mu nekk fa Touba Bogo googu sax nag amoon na fa kër amoon na fa itam nag daara ci daara Touba Bogo jooju nag ña fa nekkoon ñu mën cee ràññee nag sëriñ màggat Diop Maali Diop itam nag Ahmadou Sey sëriñ Ngaal Ba sëriñ Maguette Diop ak sëriñ Sini Lo sëriñ Sini Lo sax mi ngi Touba Bogo nag ba nëgëni ak ku ñuy wax nag sëriñ Pape Diop nekkoon itam nag ci kër gi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu nekkoon nag ci daaray sëriñ Saliou Mbacke yi amoon na itam nag ab tool àllarba ci diggante Kuucuuj nag ak Yaman taalibeem bu ñu doon wax nag sëriñ Mor Sall moo ko ko daa bayal tool àllarba boobu nag sëriñ Saliou nag na nag ñu di ko bayal ba nim fi bàyyi ko ginnaaw bu mu fi bàyyi ko nag doomam gi nag di sëriñ Modou Mbacke moo wéyal nag tool ba la ko fu turandoom nag jëlee sëriñ Moodu Moustapha Mbacke Falilu yóbbu ko nag ca fa ñuy wax Touba Aliya ci sii nag di saalu mu wéy nag topp nag ci ginnaaw Cheikh Mamadou Fadal Mbacke lépp lu ñoree nag ci suuf soosu nag mu yit koko ginnaaw Cheikh Mamadou Fadal Mbacke mu topp nag ci ginnaaw magam nag sëriñ Moodu mustafa Mbacke Falilu bi mu matee jël soxna moom sëriñ Saaliwu Mbacke ñu boole kook nag soxnaam su njëkk muy soxna Xadi Kanji moom meññ sax nag ab taawam jëm fayee nag soxna Assu Ceerno Mbacke di soxna Assu Mbacke yoroon na soxna ñooñu itim nag ab xalifaam di sëriñ Abdoulahi Mbacke yoroon na soxna suñuy wax nag soxna buri jaw moom meññ itim nag kam faye sëriñ Modou Moustapha Mbacke Fallilou di sëriñ Modou Mbacke doom jii ñuy wax sëriñ Fallou Mbacke tem faye ko nag waajuróomam wa soxna Ndey nag mooy waajuróom doom jii nag mu faye rakkam sëriñ Adama Diouf soxna Awa Souran nag mooy waajuróom doom jii nag mu faye rakkam sëriñ Basiiru Mbacke ibnu Cheikh Mamadul Faadal Mbacke soxna Ngaan Fay nag mooy waajuróom doom jii nag mu faye magam sëriñ Cheikh Ummi Mbacke soxna Kinne Ñang nag mooy waajuróom ñaareelu doom jii nag mu faye cheikh mamadul faadal mbàkke di waajuram nag ba tey soxna faama jóob nag mooy waajuram doom ji nag di soxna maam awa mbàkke dam fayee ko maam nag soxna awa buso soxna buri fay nag mooy waajuram doom ji nag di soxna faama mbàkke soxna buleel jóob nag mooy waajuram doom ji nag di soxna mbeen mbàkke dam fayee ko nag soxna mbeen mbàkke faliilu soxna ture nag mooy waajuram ñaareelu soxna mbeenam itim moom sëriñ saaliwu mbàkke soxna absa faal nag mooy waajuram moom sëriñ saaliwu mbàkke nag yoraatoon na nag yeneen i soxna soxna yooyu nag amu ci nag ak njabootuk sëriñ saaliwu mbàkke soxna yi ñu leen tuddal nag ñoo leen meññi mu nekk nag ku doyloo cheikh mamadul faadal mbàkke nag muy waajuram toppit nag ci ginnaawam di ko liggéeyal nag ba ni mujjee gis nag cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke nag muy waajuram moo ko dëloon nag ci dëkk bi nag di Touba Bogo dëkk boobu nag di Touba Bogo sëriñ saaliwu mbàkke nag amoon na fa kër amoon fa daara itim daa fa baye nag lépp loo xam ne ni itam nag daana fa ñoree daana ko yit nag waajuram nag cheikh mamadul faadal mbàkke bëgg cheikh mamadul faadal mbàkke googu nag Mamadul Faadal Mbàkke tudde na waajuru Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ba doom di soxna Awa Buso bëgg Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke googu nag ak doyloo ko tax na nag Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke itam nag daana ko yónni nag ci ak nekkinam daana ko yebal nag ci tool àllarba yiñ daa bayal nag ma mu dul Faadal Mbàkke moo tax sax soo delloo nag ci waykat yi fi newoon ci jamonoy mu dul Faadal Mbàkke muy ñoom Sëriñ Njool Ñang ci way yooyu ñu daa amal nag daanañ bàkk nag Sëriñ Saaliwu Mbàkke di ko xamal ne tool àllarbay Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke yi nag yaa ci doy nag sa waajur woowa saa su ne nag yow yow la ci yabal mu nekkit nag ku bëgg cheikh mamadul faadal mbàkke bëgg cheikh mamadul faadal mbàkke googu nag ak doyloo ko nag ci la sax ba nim génnee àdduna nag ci atum 1984 suñ boroom nag teel koo defal nag mbooloo mu ànd ak ñoom nag di liggéey ci taalibeem yooyu nag ñu mën cee ràññee sëriñ moor sàll nag bu tuubaa sëriñ mbay maram ci dëkk bi itam nag di tuubaa sëriñ suley mbay sëriñ abdou karim sekk sëriñ ibrahima sëy sëriñ elaaji sëy sëriñ abdou njaay sëriñ maalik jaw nag ci dëkk bii nag di mbooroo bay sàmba ture ci dëkk bii nag di kër mataar xaali Saali ci suuf si nag di Tiwaawoon sëriñ Mbay Fall nag ci dëkk bi nag di Ndakaaru sëriñ Abdoulaye Mbaye itam nag ci Ndakaaru sëriñ Mouhamadou Lamine Mbuup mooy magu nag Baye Ndongo Mbuup nag bu Lamp Fall FM sëriñ Ibrahima Mbaye nag ci Ndakaaru ba tey sëriñ Màggat Wàdd nag bu Kaolack sëriñ Maxtaar Fall itam nag bu Kaolack sëriñ Modou Ami Diop ci dëkk bi nag di Sibassor wala ci quartier bii nag di Sibassor sëriñ Malick Anne mi ngi suuf si nag di Saloum sëriñ Saliou Samb ci dëkk bu ñuy wax nag Touba Ali Mbenda sëriñ Cheikh Samb ci dëkk bu ñuy wax dëkk bii nag di Thiès alaaji Moussa Ndiaye nag ci dëkk bii nag di Njaareem alaaji Moustapha Thiam nag ci dëkk bii nag di Sibuxtaan sëriñ Afia mbay nag ci dëkk bii nag di Touba sëriñ du Ndaw nag ci Kaolack Mbàkke Bawol gi itam na am na kuñ fi daan wooye Konaate ci taalibeem yi itam nag la bokkoon taalibe yi ñu leen tuddal nag ñu ci baree baree bari nag génn nañ nag àdduna waaye seenu njaboot nag ñi ngi fi ñii ñu leen tuddal nag lenn lañ nag ci taalibey sëriñ Saaliwu Mbàkke mu wéy topp nag ci ginnaaw Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ba nim mujjee gis nag Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag ci atum 19 soixante mu topp nag ci ginnaaw magam sëriñ Modou Moustapha Mbacke faliilu di ko xoole nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ci xilaaf ak sëriñ Modou Moustapha Mbacke Falilou nag la génnee àdduna ci atum 1984 mu daa jaabante nag diggante Ndakaaru nag ak Touba ak dëkk yi nga xam ne nii nag fala ami daara nag di fa bay tudde na magam nag sëriñ Modou Moustapha Mbacke Falilou doom jaxasoo googu mu jaxasoo nag magam nag sëriñ Modou Moustapha Mbacke Falilou topp ci ginnaawam googu nag mu toppoon nag ci ginnaawam diirum nag lim fiy nekk te sëriñ Fallou Mbacke nag bàyyi koo màggalu kazu rajab gu jot dana dajale nag mbooleem taalibeem yi nga xam ne ni nag màggal si nañ Touba ñu dem nag seeti sëriñ Modou Moustapha Mbacke Fallilu yeesalaat seenu njébbal nag joxaat ko nag seen addiya mu nekki nag ku jaxasoog nag yoonu murita ku wëlërante woo nag sëriñ daam atta moom Cheikh Ibrahima Mbacke moom xaadim rasool la ku jaxasoo woon nag sëriñ Mbacke soxna loola ginnaaw bu fi sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag bàyyi ko ci atum 1978 tukki bi sëriñ Mbacke soxna loo nag njëkk a def ci ginnaaw sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Saaliwu Mbacke moom Cheikh mu dul faadal mbàkke nag la ko àndal ba tukki ba nag jeex tàkk sëriñ saaliwu mbàkke nekki nag ku jaxasoo woon ak sëriñ musaa mbàkke moom cheikh mamadul bachir mbàkke mu nekki nag ku jaxasoo woon ak sëriñ musaa busoo bu gédee mu nekki nag ku jaxasoo woon ak sëriñ alaaji mbàkke moom sëriñ muudu jee mbàkke mu nekki nag ku jaxasoog sëriñ alaaji mbàkke moom sëriñ moor doj mbàkke mu nekkoon itam nag ku jaxasoog cheikh mamadou lamin baara mbàkke nekkoon itam nag ku jaxasoog sëriñ jiili mbàkke moom cheikh mamadul faadal mbàkke nekk itam nag ku jaxasoog cheikh mamadul bachir mbàkke moom cheikh mamadul faadal mbàkke ba tax na sax tudde na cheikh mamadul bachir mbàkke doom ku jaxasoog sëriñ abdul fata mbàkke moom cheikh mamadul faadal mbàkke nag la woon ba bi mu génnee àdduna sëriñ moodu moustapha mbàkke jaxasoo nag gu ñaari jëmm yooyu nag jaxasoo tax na itim nag mu sàkku itim nag ci sëriñ abdul fata mbàkke mu dem nag ceesa ngir toppatoo nag jëmm jii nag di sëriñ saaliwu mbàkke nag ngir mën koo indi abdul fata mbàkke ak sëriñ saaliwu mbàkke taalibépp sëriñ saaliwu Saliou Mbacke bii nag di Serigne Mor Sall ginnaaw bu mu retraité nag ci armée bi delsiwaat nag Touba dëkkub Serigne Abdoul Fatah Mbacke Fallilou bii nag ñuy wax kuucu dañ gën koo xam nag ci Touba ndigal fala daa bayale nag wala bokkoon na nag ci fi mu daa bayale nag Serigne Saliou Mbacke nag tool àllarba diirum nag lam fay bay Serigne Abdoul Fatah Mbacke daa faboon léppam nag jébbal ko nag Serigne Saliou Mbacke ci dëkkam boobu nag daana xamal Serigne ma mag nag ci Serigne Fallou kon nag ma moom lépp loo soxla nag tama moom ko yaa ko moom diirum nag li fi Serigne dëkk boobu nag di Touba ndigal da koo bàyyi woo nag sëriñ Saaliwu Mbàkke bi fi sëriñ Saaliwu Mbàkke nag bàyyi ko la koy doog fa nag nekk fa diggante nag bu yaatoo yaatu nag moo doxoon nag ci ñaari jëmm yi mu nekk itim nag ku jaxasoog njabootuk Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag bu jigéen gi rawatina nag seen mag ja soxna Mbeen Mbàkke Faliilu tudde na doom nag soxna Mbeen Mbàkke Faliilu mu nekk nag ku jaxasoog soxna Abi Mbàkke soxna Abi Mbàkke nag moom Cheikh dul Faadal Mbàkke moo nekkoon nag ab cëram nag ci njabootuk sëriñ Fàllu Mbàkke gi bépp soxna nag bu masaa dëkkoo soxna Abi nag moo lay dugal nag ci ab néeg tuddewul soxna abi mbàkke doom waaye tudde na nag waajuru soxna abi mbàkke ba nag doom di soxna assu mbàkke ceerno ci gàttal daal mën nañoo wax ne mbooleem njabootu xaadim rasool gi sëriñ saaliwu mbàkke mii nag ku jaxasoo woon nag ñoom la woon rawatina nag ñim bokkal cheikh mamadul faadal mbàkke mu am kër nag ci tuubaa këru tuubaa gi nag moo tolloo fii sëriñ moodu maamun ñang nag dëkk moom sëriñ aafiya ci wetu armeer yi ci yar ak jàngale ci la sax nag ba nim génnee àdduna turandoow génn àdduna nag ci accident ci wetu dëkk bii nag di Puuta ci yoonu Ndakaaru wi ci bëccëgu alxamis fukki fan ak ñaar nag ci maamu koor ci atum 1404 nag ci gàddaay gi alxamis fukki fan ak ñaar nag ci weeru maamu koor ci atum 1404 nag ci gàddaay gi dëppoo nag muy jeudi 15 mars 1984 jeudi 15 mars 1984 ginnaaw bu mu defee accident nag ci wetu dëkk bii nag di Puut ci yoonu Ndakaaru wi ñu yëgal ko nag fi nekkaloon Cheikh Mamadou Fadal Mbacke di Serigne Modou Moustapha Mbacke nag ab xalifaam ak ki fi nekkaloon sëriñ Touba Cheikhul Khadim di sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke sëriñ du Moustapha Mbacke Fallilu mi magam nag moo sàkku itam nag ci sëriñ Abdoul Fatah Mbacke Fallilu mi doomu baayam ngir nag mu dem hôpital régional nag bu Thiès toppatoo nag jëmm ji nag di sëriñ Saliou Mbacke moom Cheikh dul Fadal Mbacke bi sëriñ Abdoul Fatah Mbacke nag demee Thiès nag ba jot nag ci jëmm ji nag di sëriñ Saliou Mbacke la ko indi nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba biñ ñëwee nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moo sàkku itam nag ci sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke ngir mu jullee nag doomu cheikh moomu dul faadal Mbacke bii ñu denc ko itim nag ci wetu maamam soxna Awa Bousso ci guy texe denc ko itim nag ci wetu bàjjanam ba nag soxna Mariama Kunta ci teewaayu nag mbooleem njabootug cheikh mu dul faadal Mbacke gi ay xalifaam nag nii la tëdde moom sëriñ Saaliwu mbakke moom cheikh moomu dul faadal Mbacke sëriñ Abdoulahi Mbacke moo ko wuutu nag ci atum 1984 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñ nag te wéral ay cëram te yàggal ko mbooleem nag ñu mu séqal nag sëriñ saaliwu mbàkke moom doomu soxna assu si bi nag ak cheikh mamadul faadal mbàkke di sëriñ saaliwu mbàkke njabootam nag gim fi bàyyi lenn itim nag ci ñoom amaloon nañ ko nag ay bisi ñaan di nag fàttaliku bis bi gën a wér daal ci bisub sëriñ saaliwu mbàkke ci luñ tudde nag ak màggal mooy màggalug waajuram gii nag di kazu rajab saa bu ñuy màggalal waajuram wi nag di kazu rajab danañ ci fàttaliku waale nag doomu cheikh mamadul faadal mbàkke bi di sëriñ saaliwu mbàkke ñuy ñaan ca doomu cheikh mamadul faadal mbàkke ba kam fay woon rakku cheikh ibrahima fall lamp